bi ñetti chirurgien kenn ki day day cervical kenn ki waree kenn endonasal mais année bi lañu lañ ñëw def implant cochléaire xale ba nga xamante ni bu lay juddu du dégg kon du wax mu boo ko defee implant cochléaire avant muy am quatre ans acquisition de langage trois ans ci lépp chance pour wax malheureusement Thiès on avait ñetti malade mais malheureusement indication yi dafay seen oreille ossifiée da nga dugal implant bi et alhamdulilah Dakar nous a secouru envoyé ñu benn benn malade bu ñu def gratuitement Touba aussi on avait ku ñu depuis Dakar ñun on avait trois patients indication baaxul ñu remplacé ko par waa ki nekk Touba ki nekk Dakar alhamdulilah def nañu implant yi dañ ko activé incha allah le 11 l' implant na coûter six millions cinq cent appareil